Modou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf li waay yeewi yendoo démb moom la yéene kaay xëy yeewoo yëral xët mu njëkk l'observateur mi ngi ñuy nittali temps fort yi woon ci ziga meeting bi waay yeewi askan wi woowoon askan wi démb ci ngoon ca terrain ak APS ba ca Parcelles Assainies mobilisation baak déclaration yi fa jib ba ci autorisation yi soxal manifestation yi yu ci nekk yéene kaay bi xëy nañ ci dellu siwaat Sud Quotidien nañu méga meeting ca Parcelles Assainies bu Dakar waay réew mi mu des nag léegi ñu xam luy xew tey ci àllarba ji ak suba ci alxames ji journal bés bi le jour mi ngi ñuy wax ne premier ministre du ba woon présidente conseil économique social ak environnemental ba woon di Aminata Touré ma nga woon démb ci méga meeting bi waaye yeewi askan woote woon démb ca Parcelles Assainies direct news ne ko loolee nag moo neexut a gëm Aminata Touré ci ab meeting bu waa yeewi askan woote loolee gis ko rekkee tax nit mën koo gëm suur soo ne ko pourtant moo am de Aminata Touré ak Ousmane Sonko seen gàt sa gi ñu nekke woon ci fóonanteeg saafonte maanaam ci akolaat ci la mujj suur soo dem ci ba dañuy xibaar ne kii di ba mu yéegee démb jël kàddu gi di wax daam mbooj ak Serigne Bara Ndiaye dañ ko doon mokke di ko njaay cekke ak di ko kaañoo ba dafa far mujj wàcc suur wax yu rëy te daan wax kii di Ousmane Sonko ba indil ñu ñeenti condition yi Aminata Touré tegaloon Ousmane Sonko su bëggee ñu débat kàddu yi Ousmane Sonko ci xët mu njëkk journal Le Quotidien muy woo ndaw yi di jeunesse bi ci résistance ba di leen wax ne bu dee parewu leen ngir xeex teel ma ko wax ñu bàyyi Macky Sall mu déroulé yaataa yumbe doxal programme ci vox populi mu fay wax moom Ousmane Sonko ne faalewu ma it justice su Macky bi le mandat ñu ci jamono ji nga xam ne 48 moo des di ak coowal Prodac li mu war a lijjanti ak Mame Mbaye ca kanamu yoon ci la kii di Ousmane Sonko demee Parcelles Assainies kër Amadou Ba la mi ngi gën di bari ci réew mi te journal bi gis na ne bu ñu ci waxul du jur jàmm jàmmi réew mi ci wàllu koom-koom journal yu bari yu xëyandul xëy nañu di ñu wax li ci waa FMI Fonds monétaire international wax lise ko nañu gaay yi jox nañu Sénégal ay note yu baax waaye te joxoñ nañu leen ay rëq-rëq yu ñu war a ngir koom-koomu réew mi jaar ci yoon la nañu mission bu Fonds monétaire international bi ci réew mi nee nañu am nañu yaakaar ci yees bu ñuy tëgg ci diggante Sénégal ak FMI mu di programme bu tënku ci économie ak finance ci weeru avril wi ñu jëm soleil national ne nañu ci la ñu war a door négociation yi douane bu Sénégal anki dine kay mi ngi ñuy xibaar garab yu bon di ay faux médicament yu ñu jàpp ci réew mi ci diggante njeextal weeru février ak weeru mars gi ñu nekk mu di ay faux médicament yoo xam ne waa douane xam le nañu ne seenu njëg bu ñu ko doon xayma dina toll ci téeméeri millions ak juróom-ñeent mi ngi ñu cey wax